jërëjëf ñu dem ci ki nga xam ne moom laajul dafa duut baaraam muy Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ñu dem dellu siwaat Sénégal la comptable assignataire mooy trésor public moo war a yore xaalis bi xanaa kon beneen jalgatee ko may wax ne man du ay nit ñoo ma intéressé man Sénégal moo ma intéressé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 lu état bi di xaar ci woo ko lii nga xam ne moom daf moom pare na pour ñu woo ko mu leeral wala ñu ñu tontu ko bokk. léegi lu tax ñu mën a jàpp lu tax ñu mën a woolu kuy pose question bàyyi koo xam ne buggaan ba mu waxee léeg-léeg yàgg na kenn tontu ko mu génnaat di confirmer di leeral ci xaalis boo xam ni dañ ko sàcc ci turu Sénégal. def ko ci ay compte yoo xam ne du compte Sénégal. waa am na solo kii Bougane dafa am koo xamante ni maam muy Mansour Faye moom la dut baaraam. ni moom moo wut xaalis ci turu Sénégal def si kont nangam nangam la say jógee yooyu yëpp mu leeral ko ba pare amee ay preuve teg ci table ji léegi nag euh, loolu kay yoon moo waroon laaj moom kayit yi preuve yi mu teg ko ñu wooyi soor fay bu ko defee ñu tekki ndomba la jaaxal ñëpp lan moo tax ba léegi buggaan bugaan woowuñu ko mu la kii waaw moom dañ ko pelante wut moom soor fay la Mansour Faye pelante wu ko man naa Mansour da ko bàyyi yàlla bàyyi yàlla ci xam nga loolu day am nga xam nit mën na laa tuumaal nga xam ne lii mu ma tuumaal ka dëgg ju wér la te bu ma demee si yoon it bu ma ko jaay doole damay daanu ngay naa bàyyi mu sedd bañ see wax ñàkkal ko fayda hmm. mais lii bu buñ ko ñàkkalee faydaat da yàgg-yàgg danañ ko leeral xaalis bi moom dana ko génne moom bu fekkee ne lu mu jël la hmm. xalaa kulli alin dana ko génne ndax xaalisub Sénégal la réew mi moo ko moom hmm. foofu maa ngi wax buggaan il faut mu xam ne Mansour Faye alalam ji bu mu tax mu yaakaar ni moom it Mansour Faye liggéey ndax Mansour Faye liggéey doomam bu jigéen di liggéey doom bi nag yi mu am rek nag yi ay mil ay dix millions ay nag yooyu lay jar li mu yor si ay nag kenn mënu la wax ñaata nag la nag yooyu mën jur lu jur waaw nag yi mën naa mën naa tax mu dem ba Mansour doon milliardaire mm-hmm. doom jooju liggéeykat la xam nga ne gone gu toll noonu yor ay ay nag ay millions di yor ay milliards si gone gu toll noonu kooku kon liggéeykat la waaw looy rek ci gone gu toll noonu ah li dama ko bëgg a day liggéey doomam di liggéey waaw doom ji waxuma la Mansour mais doom ji li muy liggéey rek man laa tax ma am ay non non bugaan xaalisa bu bari bi daa wax ni xaalis bu ñu lebee bitim réew ci ah. turu senegal mhm. mu dugg ci ay compte jaar ci ay compte léegi est-ce que doom ji jaayiwutoon ay nag dugal ko yónnee ko si compte boobu mu yaakaar ni xaalis xaalis leb la naa nekk mën naa am doom ji tukki woon de dem jënd nag na jeex mu waat xaalis bi pour mu ñëw mu yaakaar ni leb la te fekk na. <laughs> ok kon bugaan ak journaliste war nañ koo xoolaat bugaan bu demee ba jaawale xaalisu nag. ak xaalis bu ñu dégg xaalis bu dugg si Sénégal gi rek xam nga ku ko dugal non non Bougane warut a gis xaalis bu ñu dugal Sénégal rek mu ne xaalis sàcc la nag Assane bu dee loolu nag gis-gisam tuuti na lool te gis-gisam suufee ah, na man daal xam ma si dara joxe hélas da ngay laaj damay laaj donc joxe hélas ay jé alaaji euh, Bougane de génnaat na mu mel ni wax jam waxoon démb dafa mel ni Sénégal dañ koo déggul te pourtant Sénégal dégg nañ ko ba doon ci def ay débat mu génn démb confirmé waat waaw xam nga Bougane problème Bougane moom benn affaire mooy problème am maanaam boo gisee léeg-léeg nit ñi duñu wóolu bugaan sénégalais yi dañuy gis chaque jour ku def lu gën a tuuti ñu woo ko gis bugaan moom di def ay révélation yu rëy te kenn du ko woo ñu gis ni bugaan eh, bu Macky jaaree nii mu ne ma ngay tibb tànk fu mu jaar mu wax fa kii te kenn du ko sonal mhm. maanaam teguñu ko daal benn coono boo xamante ni bii gis nañ ko Euh, ñu teg ko ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko tegee yenn opposants yi te Bougane dafay wane chaque jour ne man ku radical la waa léegi nag nit ñi nag seen problème mooy lu tax euh, yenn yi xam nga bu ñu woowee koo xam ne daa laaj hmm. bàyyi koo xam ne dafa jam baaraam ba léegi tontuwuñ ko faalewuñ ko xam nga loolu dafay teexel nit ñi dañuy commencé di xalaat naan est-ce que euh, lii lii la est-ce que lii du lii est-ce comprendre nga maanaam question il faut ay question ñu posé ko tamit ci ki nga xamante ni kii euh, mooy buggaan ci yëf yi ni nga xamante ni bii noonu lay demee parce que li mu wax non seulement bu fekkente ni noonu la demee scandale bu grave la. parce que mm-hmm. bu fekkee ne dañuy leb ci turu Sénégal alal jooju di dem ci beneen compte. Mm-hmm. li buggaan wax bu fekkee ne noonu la demee loolu lu ko gën a doon scandale. kenn du jaay ay nag. non xam nga mbirum lii xaalis la boo xam ne dañ ko rep ci turu Sénégal buggaan li mu wax lu leer. maanaam xaalis bu ñu leb ci turu Sénégal ba noppi bi mu ñëwee fa mu waroon dugg fa xaalis bi war a dugg dugg fa dugg ci beneen compte privé loolu la bëggaan wax mm-hmm. ne compte boobu ki ko moom mooy Mansour Faye loolu mooy li nga xamante ni bii moom la du dëgg mm-hmm. waaw ba léegi euh, kii ñëw moom di laaj ne est-ce que président mayewut luy tolloog sept milliards sept milliards Marie Le Pen kii ne quatre-vingt nang quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xamante ni bi kii da koo jël maanaam teg ay preuve waaye procureur woowu ko pour mu indi ci loolu ay leeral defe naa ni kañ fu ñuy lijjantee la lii moom war nañ koo mën a lijjanti te lijjanti lii léegi nag xam nga loolu mooy tax Bougane pour mu am crédibilité dëgg-dëgg problème lay ne Assane ke li mbiru état de xaalis bi ñu leb ci turu Sénégal waaw loolu mbiru état man maakaar Mansour Faye la. xaalisu état dañ ko leb ci turu Sénégal ci turu Sénégal déggoo turu Sénégal. loolu la wax mais alal ji fi mu waroon a dem demu fa dafa dem ci compte privé loolu mooy li nga xamante ne bi mooy li garaaw. Hmm. donc nag euh, bu fekkee ne bi yëf yi demee na noonu te kenn woowu ko kenn indilu ko ay leeral euh, journaliste yi liggéey bi ñu ci war a def tamit ngir. ne ci mbir moomu tamit des na. waaw nag maanaam tey ji non man alaaji foofu am naa fa ay. loolu bu amee am na journaliste yoo xam ne loolu la war a dem vérifier ji jéem a xool. Mhm. war nañ jéem a de rencontrer Bougane. jéem a xool ndax yëf yooyu maanaam indi ci tamit ay gindi. xool mais alaaji pour Sénégalais yi xool léegi léegi man léegi man loolu problème boobu am naa ko alaaji Bougane maa ngi la koy wax de xaw ma ndax état bi da koo nawloowul xaw ma ndax li ngay wax la léegi Bougane xëy na jiiñ fii état bu Sénégal yi dañoo tëj ay kontaan. ba fii may wax yow état bu Sénégal tontuwul Bougane Gueye Dany waaw xëyaat na tuumaa leen parce que bugaan du luy kese de am na immeuble bu mu wax fii côté Dakar boo xam ne na xaw ma lan ak suuf buñ buñ jalgati mais lan moo tax ak scandale bu mu mën a wax du lu tax kenn du ko tontu. am nga am nga ni bu la leeroon lii dëgg la da ngay bàyyi mu sedd rek. bàyyi mais yow dëgg la kon. Hmm? dëgg la ah, ko wane ko nga wax du dëgg. waaw mais loolu mooy sama question maanaam lan ah. moo tax léegi moom kenn du ko woo. ah nit ki moom ah, boo ñëwee teg say preuve. man daal en tout cas euh, mbiru bugaan daal hmm. jaaxal na xam nga léeg-léeg bugaan xam nga déglu naa gaa mi nee nañ waaw bugaan nag day journaliste bu xereñ am xam-xam waaw xam nga journaliste yi nag moom ku ci nekk dafa am ay eh, ay kii xam nga yenn journaliste d'investigation yi ñuy wax yooyu buggaan dégguma woon ni fu mu nekkee journaliste d'investigation ah, ba mën a lukkar ci lenn eh, kii yeeg yooyu parce que yooyu daanaka journaliste buy enquête la am say kii wag da ngay am say réseau affaire yooyu quoi yoo xamante ni bi yenn yi fi la maanaam en tout cas fi mu toll moom nag patron de presse la mën na am tamit yeneen ruq yoo xam ni mën nañ koy jox yenn xibaar yi mën na am daal yenn xibaar yi doo weddi xibaaram bi nga xam ni moom lay joxe mais xibaar bi dañ ko war a indil ay tontu ay tontu daf cee war a jóg parce que quatre-vingt-dix-huit milliards ñu tuumaal ko benn nit. ne dañ koo dugal ci kontam. mais loolu wax dëgg fa la yàlla il faut respecter sénégalais yi. bu ko defee jéem a lijjanti mbir moom. lan la parce que tey jii bu gaan xas na ba dugal loolu ci bopp sénégalais yi. ne quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xamante ni bii mooy loolu. mais est-ce que bu kan ku la pelante jëruñu yow yaa ngi tuumalaat dem dem pelante démb pelante ko turu Sénégal laa amul amul ñu yor kuréel boo pour Sénégal leen concerné pour ñu mën a non non Assane bu am nit posé question ci am réew ñu démb démb kii bi démb ñan ñoo gën njëkk a jàpp euh, jour kii bi jour loolu maanaam euh, conférence de presse yu yeewi bi loolu

laa fa boo fa nekkee dama ni décision ya dama ni décision ya ci ñoom ña koy xalaat moom asal si jubóo gis nga ah. gis nga Sonko ay ay du ni la cinq wala la nangam de waaw moo tax ma léegi wala ñu ah. a jàpp ñee njëkk a jàpp yow mën ngaa gi njëkk a yëg waaw ah. mais ñee njëkk a jàpp moom yow man ñaar yëpp dama ko teel yëg man affaire yi bu amee dama koy tag dañ may dañ ma koy teel jox ñëpp léegi yow lan moo tax boo ko teelee jot doo ñu koy teelee wax waxuma la ah waxuma la ñaar démb rek dañu ma sa wax léegi yow conférence de presse dem jëli ko dem jëli ko waaw waaw buñ ma mënee jox por jom ñoom loolu non ñun ñoo lay jox per jom waaw loolu dama ko def sans poste waaye dañuy joxe per jom ndax looloo amoon bu njëkk loolu nag ko fi bëgg a jëlee te loolu duñ ko nangu jërëjëf Sonko moo naan damay def conférence de presse jàpp boppam non non non nit ñi ñuy daw xëlëf xëlëf organe de presse bi ñoo war a joxe per diem non non non non journa kii journaliste yi képp ku leen woo da nga leen jox per diem boo ñëwee dañuy bind sa tur boo nappee ñu rappel joxe per diem yi per diem a tax ngay dem non per diem taxut mais Sonko fi bëgg a jëlee loolu ay affaire per diem ak yooyu dafay dem liggéey yëkkati la nga liggéey dem sa yoon alaaj loo jubli sa laaj boobu <laughs> ah waaw c'est que xam nga dama bëggoon a laaj rek ndax Hadjibou Soumaré moom kañ lañ ko convoqué moom it démb la woon. moom dañ ko ko démb la woon mais kañ ak ko maanaam biñ ñëwee suba. Ah. buñ ñëwee suba la lañ ko kii ah. ah. donc moo wax aji bu man moom damaa bëggoon a liñ koy yëpp quoi xool ba xam. ba xam li nga bëgg a leerul de. waaw mel li ma bëgg a wax. dafa nekk si leer moo yow bëgg a a wax leer. biir yi biir yee leer voilà parce que. maanaam aji bi biñ parce que léegi lépp li mu nekkee benn jour bi quoi maanaam li lépp dajee ci même jour bi. ñu woo kii kii génn def ko est-ce que léegi loolu lépp daje ci benn jour bi quoi maanaam Hadjibou Soumaré Yewwi Bougane lépp nekk ci même jour bi nga xam ne moo lekk loolu. Euh, da ngaa jàpp da jàpp da am kuy ruube ah loolu nga foog. ah que lépp parce que le fait que dafa mel ni. affaire yi waa yeewee ruube rek. waa yeewee est-ce que du ñooy ruube. waaw moo tax may laaj waa yeewee. non man gëw ma ni. waaye sax mbir mi jàpp ma ni jàpp ma ni waa yeewi ñoo mais dama dama bëggoon naa xam daal exact euh, ñan ñoo njëkk a lancé mbir mi. d'accord ndax na parce que ni ñett yëpp ni yëpp dajee ci benn jour bi démb. Sénégal yaatu rek <laughs> Sénégal daa yaatu. Assane mi sax démb naroon na maa def.